bi baax. dama ne la bul place bi baax bi baax yaa ngi may tooñ de. way wi neex na nag way wi j'adore cette uh, chanson ma dégg la nga naan ci farata rek laay dox jàmm ji ci yow la nekk te man léegi na eh, ma ne doxoo ci farata koon nga takk booy bi. non bu baay ma bàyyi nga naan ma mais kon nga takk booy bi farata takkal booy bi. ma koy takk. kan ngay takk jaar. kan. <laughs> <laughs> <laughs> ma dugal waay. ah jaar jaara moo ne ci man la takkal booy bi nga ne da nga koy takk. waxal ci micro bi pour man booy bi ngay wax. lan moo tax yéen yéen góor quoi yéen booy booy bu tax fidelu leen quoi man ko ma ni kan la tudd moom wax la tur bi nice mu jeex. waaw am na yoo xam ne mënoo ko mënoo ko wax publiquement. mais mais loolu dara bu fekkee. yow ci la sa genre bi. nangu <laughs> da xam nga xale yi yéen ñu toog noonu ñëpp bu ngeen paree message leen ko ni ko yow xësa kim la doon waa waxal ku tur bi tàmbalee. non non jaru ko jaru ko dañoo bëri gel léegi dañoo bëri gel laissez tomber euh, euh, bi nga xam ne moom moo di Pipana euh, je vous l'ai dit tantôt moom bokk na ci xale yi nga xamante ni il fait partie des révélations de la musique sénégalaise bi mu ñëwee yàggul waaye avec son propre style euh, doon benn benn genre kaana quoi demi kaana la nii moom parce ma mais la quoi yow la quoi Love yeah ma bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi ba pare ñu dugg ci biir waxtaan bi nag salaamaaleykum maa ngi lay nuyu Kheucha di nuyu ñëpp ñuy seetaan di béggee ñëpp di nuyu sama papa di nuyu sama yaay di nuyu ñi ma àndal Abou Beka my brother Lil Boy sama manager di leen béggee yéen ñëpp yaa maa ngi lay siyaare man tam bu baax a baax a baax def de ay wut manager bu la mënal dara de nii de amal fu la de jàpp ci nit yi mooy dee ah, euh, waaw bi mu xoolee dafa xoolee ki nga xam ne moom moo di njaga oro ni ko jàpp te tee ko parce que c'est un jeune promoteur et il est vraiment quelqu'un de bien hmm. bu moom tamit nekk benn jeune euh, tiktoker bu doy waar ne am style boppam moom je l'apprécie euh, ce garçon maa ngi koy nuyu moom baax a baax yow itam maa ngi lay charré bu baax gis na la yaa ba nga tàmbalee yàggul et chaque fois si tu viens tu de de très belles choses mu doon loo xamante ni nouveauté la encore ci talent nit di gis ko koo xamante ni bu ñëwee rek chaque fois bu génnee mu def étincelle qu'est-ce que ça te fait ce titre également pourquoi nga indiwaat ñu ci mbëggeel waaw waaw waaw lu tax ma indiwaat mbëggeel parce que déjà dès le début rek dama ñëw ne Mr Love laay imposé mm-hmm. maanaam je vais parler que du love mm-hmm. ça ne veut pas dire que ni sama son yëpp loolu lay doon mais boo seetloo histoire lay raconté premier son bi Chéri Boy la après Chéri Boy elle est partie wéet maanaam lépp suite bi mariage et tout et tout et cetera. ah yow nga ko kiiwee. et pour le moment loolu moo loolu loolu mooy am sax incha allah noon laa loolu laa defee. Ah, da ko bëgg jibaa quoi. indi ci mbëgg ah ah, ah, ah jibaa taay déception la indi de moom lépp mbëggeel la de jibs sama xarit bi. loolu mooy. loolu mooy yéen daal booy daal léegi ku ci dugg rek la way. ah mbëggeel rek. man man moom perso Mr Love. nga quoi. kon yow mbëggeel ngay way ba ba ngay dee. waaw eh! waaw. dégg nga dégg yëkkatil micro bi bu baax a baax Barak moo tax man la woon ñu takkal ko kii bi mais c'est pas grave s'il te plaît yëkkatil micro bu baax ñu gën la dégg euh, xam nga ñoom rappeurs yi boo leen boo leen takkalul cravate fii la ñuy nee naan bon tu sais kii wa wa live parce que ñoom <laughs> ñoom dañuy fàtte sax micro bi quoi mais bon on gère quand même euh, rapidement euh, ñu dugg ci li nga xam ni moom moo di titre yi nga jot weesu ndaxte bii sa par d'amour mais est-ce que c'est vrai que ni li nga bind way ko yow yaa ko dund yes yes même su ma ko dundul. am na sama broche bu ko dundul. ok tey jii mën na nekk abu mën na nekk Lil Boy. mën na nekk dañuy toog sama gars yi ñëw raconter ma histoire. Hmm. genre dañuy toog ñuy waxtaan en tant que pote. après kenn forcément da lay raconter benn histoire après. Hmm. aussi prendre leçon après moo demee studio tac dès que eu la prod. Billy kan moo la koy defal Grégoire tu lui prépares ces trucs là euh, yi mu daan euh, œuvre bi mu mujjee génne bi nga xam ne moo lancé déjà carrière am s'il te plaît prépare ça pour lui euh, kan ci kan moo defal beat yi ngay tóore ni premier beat bi sama benn boy bu nekk fii Sénégal Freezy moom moo ko defaraloon ok mais deuxième bi um, je l'ai acheté sur internet ah tu l'as acheté ah on achète des beats ouais ok son bi nii boo disee son bi je l'ai fait en je l'ai fait en 2020 de bii nii ah ok soo ko génn nii Mm. ça veut yi nañ xaar parce que instant yi job naa yeneen affaire c' est juste que ni son bi nii suite la ak chéri wooye ok moo tax bii nii moo si waroon toog ok d'accord donc euh, kon bit yi am na yu ñu ciy jënd ci YouTube bi. ci ci net bi loolu de moom maa ngi koy doog xam gis nga moo tax artistes yi dañ koy waar daal dégg nga da jënd euh, ngir gën a mën a taaral li nga xam ne moom moo di œuvre am c'est c'est important ndaxte euh, de dama doon dégg Wally Balago Seck daan wax di naan ay jamono man soxlooguma xaalis man maay def ci musique xaalis kon bu demee ba jamono ji yàlla may ko li mu ko may c'est parce qu'il a investi de l'argent animation wax dëgg yàlla sonnoon naa ci lool. Ah, gi fil potundaa day jekk saa jàppay potundaa di ko dëngal nii. donc tey bu ko yàlla c'est parce que euh, rampé na am na fu mu toll c'est important. donc Gré euh, ci li may wax nii euh, boo nekkoon sur WhatsApp ak ngay woo téléphone Grégoire bàyyi bu ñu liggéey ngay woote ay WhatsApp ak ñoom seen téléphone bi ñu xool Pipana moom tam œuvre bi nga xamante ni ko génnee et vraiment qui a le buzz un peu partout daan ko ràññee ñu xool ko euh, euh, mu waxtaan ci euh, li nga xam ne moom moo di produit boobu et on revient c'est parti. ça se rappelle cette chanson et quand tu quand tu l'entends fenn nga romb dégg way bi naka naka la lay def. kontaan. day kontaan day mooy jàll nii quoi. après dalay def ay affaire da ngay da lay da benn ins. parce que ban jour moo la ci gën a marqué bi nga xamante ni yow romb nga ko wala dem nga fenn dégg sa chanson et mu marqué la nga commencé xam ne ah man kon je je je commence à devenir quelqu'un bi ma koy pour dire vrai bi ma koy romb sax defuma woon dara xam nga fan la ma defee dara bu ma yéegee concert genre damay ñëw tëll rek nga gis gars yi yuuxu flash yëpp tax nga ni waaw. Laay il est devenu quelqu'un après damay gën a sant yàlla après damay gën a jox envie liggéey. d'accord parce que da ngay parce que doo ko imaginer. Mm-hmm. en fait début yi da ñëw tak son bi génn. ok y a des vues sur YouTube ok mais gisaguma woon dara quoi en fait. nga yéeg concert nii gars yi yooxu gars yi wayal la son bi ba mu jeex. ba mu jeex ma laa il faut que ma jéem a liggéeyaat quoi il faut que ma jéem a teg dara sama sama sama ni ñu koy waxee sam ni sam koy wax sama sama motif sama encourage allah ce qui est important léegi-léegi dafa am benn euh, wax ju ma doon wax parce que hier fi nga toog nii euh, fii la benn plateau amoon boo xam ni Wally da ko doon def ak yeneen artistes gis nga Boubacar Diallo Boubs et j'ai eu à dire quelque chose qui est très important pour les jeunes artistes qui vont venir que anglais bi na ngeen ko gën a fonk parce que yow déjà tu as le style euh, tey euh, euh, li lay mën a permettre nga doon un artiste international mooy que tu parles anglais anglais et que tu le maîtrises déjà ton manager il le sait moom il peut parler anglais donc tu vois boo ci gën a góorgóorlu rek di nga ci am dara. am na beneen affaire bu la Grégoire dencal. xaaral ma xool Gré lan la. ça aussi cette chanson. oui à la base son bi je l'ai jamais partagé au fait. Ah. J'ai jamais partagé. Mais comment il a vécu pour pour pour récupérer cette vidéo lui. moo ma jaaxal. de du nit Grégoire la. genre mais nee ko Grégoire nu mu demee nii. Grégoire <laughs> wala wala wala. Eh? xam naa instant bi chéri booy génnee. waaw ñëpp dañuy doon dem xool genre lan la defoon booy bi. ok ok su quarante mille mais musuma dugg sama benn page partagé ko. ok ok en tout cas ñu ngi ci euh, kontaan ñun tam bu baax Gré yow tamit am na benn xale bu la souhaité un joyeux anniversaire je peux regarder cette vidéo s'il te plaît ma xool moom la yow sa anniversaire daa jotagul sax ba mu la koy souhaité ñu xool ma xool loolu la la ay ca Grégoire s'il te plaît mu gaaw. ayca kon nañu dem euh, xool beneen son euh, boo xamante ni dañ koy euh, xoolaat ndax desel na la moom dafa doy waar de gré xoolaatal ma ko beneen son bi nga ko réservel moom mi nga xam ne moom moo di Pipana c'est parti ayca booy ayca kon jeex na defe naa ni ci yooyu noonu la euh, jot a jël ci vidéo donc pipa naa lan mooy tey li nga xam ni moom moo di euh, say projet à l'avenir ndax gis nañ ni staff bi mi ngi commencé dëgër euh, commencé nga gis sa bopp dans la musique un peu partout lan mooy projet yi tey. waaw tey jii projet yi mooy comme sànq ni ma la ko waxee maanaam ay suite la suite son yi single bi ay single laay def mais single bu si nekk suite son bi bi mujjee def lay doon maanaam tey jii def naa chéri booy wéet après wéet. attendez-vous à son boo xam ne juboo lay doon après loolu on peut avoir mariage après loolu nag incha allah je prévois de faire un album. ah yeah dama bëgg def ay série de single yoo xam ne ni bu ma demee ba imposer wu incha allah album après ça. et puis pour pour un début de carrière xam nga ni euh, da nga war a di à chaque fois ñu lay gis. trois mois chaque trois mois war nga def boom. ça aussi c'est important. pare nga pour lépp am na nu muy demee sax gars chaque un mois mën ni ma en tout cas nous l'attendons et nous l'espérons également ci euh, li nga xam ni moom la dëgmal moom mi nga xam ni moom moo di Pipana ce fut un plaisir vraiment. Ah, ñu dalalaat lool fi nga xam ni moom di Parisien t'étais au Parc des Princes aujourd'hui on est au Parisien. et demain tu seras de l'autre côté ci sama plateau bu bees bi fa war toxu ndax dañuy toxu léegi léegi incha du yàgg. bërëb bi nag dañoo pare temps yi moom beaucoup et merci d'être venu. jaajëf jaajëf ñu bàyyi la nga tàggoog téléspectateurs yi. waaw di di jaajëfal ñëpp. di remercier my bro de Lil Boy Abou Beka team Pipana team Marosing Empire di remercier my bro de Zox studio am laay enregistré moom mooy mixé samay son di remercier aussi Aldo Coiffure moo jaar fii gis mu ngi nekkee mu ngi nekkee fan <laughs> xaw na fu mu non si genre. waaw groupe Fatick da ngay demoon. d'accord Aldo moo jaar fii gis ngeen. waaw gis ngeen sama contour yi. maa <laughs> dégg mu ngi nekkee mu ngi nekkee kii Scat Urbam. ok boo leen soxlawee numéro am et tout page Instagram am Aldo Coiffure A L D O tiré coiffure. yaa yëf. ayca Grégoire del suivre nag ndax yaa ngi laajte vidéo ñu laaj la vidéo joxe woo vidéo del suivre waay s'il te plaît rapidement merci beaucoup merci d'être venu à Pipana ñi ngi koy gërëm moom itam bu baax a baax a baax a baax da nga dem waru tax bu ma tàggoo ñu man daal bi fa daal tax mu yàkkamti ay mbiram taxawal leen ma ma gërëm sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi toggoon euh, vraiment seen kër euh, di euh, seetaan wala ma demee ne le sax ñëwal ñëwal ñëwal comme da nga bëgg ñu demee ne le mën ko dem seere man fii sax ma gënal ndax fii moom xaw naa kii tuuti daal maa ngi lay kontaane merci ah, ah sañse bi nga bëggoon dosé waale quoi ah mais c'est bon ah c'est waaw waaw amul problème amul problème man deux couleurs laa def a <laughs> ñu ngi lay kontaane quand même merci d'être venu Mr Pipana il se nomme merci à vous amis chers téléspectateurs ce fut un plaisir de vous servir c'était votre ami et frère merci et d'ici là un bon week un excellent ceebu jën un excellent poulet rôti quant à moi je vous donne rendez-vous rabbi lundi prochain maa ngi dem jël sama week-end ko ñëpp àndandoo ci bégal leen naa ni kontaan ngeen ci semaine bi parce que ce fut cool ce fut exceptionnel merci à l'équipe technique gàcce ngaalama jaa ngeen à l'année prochaine. Ciao